salaamaaleykum dal leen ak jàmm si chaîne chaîne Ndawa TV yéen a si njàngale bi ñu duppee xarala xarala nag am njàngale bi nga xamante ne day waxtaanee logiciel bu ñu duppee Microsoft Office Microsoft Office ab logiciel la boo xamante ne dafa ëmb logiciel yu bëri wante yi si gën a ràññeeku la ñuy jël muy ñetti yi Word Excel ak PowerPoint tey dañuy tàmbalee ak Microsoft Word. boo leen koy soog ji tijji lii ngeen di am bu leen neexee ngeen tànn fii ci ay exemple ay modèles yoo xamante ne pare na ba noppi di ngeen koy jël rek coppi ko def si li ngeen bëgg fii ngeen di bës document vierge ngir tàmbali mbind mi man nga xam ne jot naa tàmbali mbind mi ba pare lii laa jot bind lii laa am si tàmbali bi nag dinaa leen jox quelques xalaat yi nga xamante ne boo leen ko dee def boo leen jëfandikoo logiciel bi doo leen am ay jafe-jafe yu bari bi njëkk mooy da ngeen di dem fii fichier ngeen bës enregistrer enregistré su ngeen bës CPC après ngeen bës fi ngeen bëgg enregistrer cours bi boo leen bësee enregistrer fi ngeen ko bëgg ngeen bind tur bi après ngeen bës enregistrer loolu noonu nag daf leen di dimbali ngir boo leen di liggéey lépp loo leen liggéey mu enregistré ko maanaam mu denc ko comme que da ngeen di bind bu dee mémoire la wala rapport wala lu mu ci doon mun ngeen di ñëw di bës fii saa su nekk ngir ngeen di denc li ngeen jot liggéey. wante it logiciel li mun na leen ko dencal euh, simili bu nekk boo leen bëggee régler loolu nag da ngeen ñëw fii fichier ngeen dem option boo leen demee option ngeen dem fii enregistrement am na fu ñu bind enregistrer les informations de récupération automatique toutes les bu ñu fekkente ne bësuñu ko da ngeen koy bës nii mu activé wu ngeen ñëw fii ngeen soppi ko bii nag fukki simili yu nekk da koy enregistré bu leen neexee ngeen def ko. benn simili mooy simili bi gën a yées minimum benn simili lay nangu boo leen noppee ngeen bës fii ci ok ngir mu sauvegarder ko lool noonu day tax benn simili bu nekk Word da lay dencal li nga jot liggéey di leen dimbali lool ngir boo neen liggéey léegi nag dañuy waxtaanee ci xar kanamu logiciel bi xar kanamu logiciel bi man si ñeent pàcc laa ko tëgg pàcc bi si njëkk mooy pàcc bi nekk ci kaw ñu naan ko ruban ruban bi nag dafa am ay ay onglet onglet yi moo nekk nii onglet insertion onglet création onglet affichage onglet révision onglet bu ci nekk nag dafa dëxëñ ay kuréel ay groupe groupe bu ci nekk nag am na ay jumtukaay yu ci nekk yu ñuy jëfandikoo ngir ngeen mën a liggéey liggéey bu jaar yoon ñaareelu pàcc bi mooy zone de texte bi wala zone de d'exécution pàcc bi nga xamante ne ci li ngay bind fa lay feeñ ci ngay bindee ci ngay defaree lépp li ngay defar ñetteeli pàcc bi nag mooy lii si suuf ma tuddee ko barre d'information maanaam ab barre la bi nga xamante ne daf ñuy xibaar fii nii dinañu wax suñu document bi ñuy bind muy ngara bi ñaata page la am ñaata baat moo ci nekk fu mu toll nii juróom-ñaari baat la ma bindal fii muy sept mots li ma bind fii benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar muy sept mots boo leen yokkee lu bees di gis nga day yokk baat yi fii boo leen bëggee jubbanti ay baat yi nga xam ne dafa am ay gàkk-gàkk fii nag moom moo leen di dimbali ngeen mën di yokk document bi di ko xëcc wala ngeen koy wàññi ba nu mu doy si yéen léegi nag am na raccourci maanaam yoon bu gën a gàtt da ngeen di jël seen clavier ngeen bës contrôle su fekkente ne souris sans fil ngeen yor ngeen bës si molette bi di ngeen am possibilité xëcc document bi maanaam zoomer ko wala ngeen bañ ko zoomer ñeenteelu pàcc bi nag moom nekk na pàcc bu am solo bu fekkente ne da soo soog a tijji Microsoft Word du ko activer yow yaay ñëw fii nii nga dem affichage boo demee affichage nga dem volet de navigation volet de navigation nag moo nekk pàcc beneen ñeenteelu pàcc pàcc bi mujj ñeenteelu pàcc boobu nag daf ñuy dimbali ñu jaabante nu ñu neexee ci document bu ñuy liggéey fii nii ay titre la mun ngeen ñëw fii page page nag da leen wax ñaata page la document bi am. di ngeen ko mën a xam di ngeen mën a jaabante ci page bi nu mu leen neexee ak fii nga xamante ne résultat la bu fekkee da ngeen di seet ab baat baat bi ngeen di seet ngeen di bind fii rek mu wax leen fan la nekkee ci document bi ak si yan page la nekk si document bi am na leneen lu am solo loo xamante ne di ngeen ko soxla boo leen di liggéey muy règle toujours da ngeen ñëw affichage bu fekkente ne activé woo leen ko ngeen dem active règle règle bi nag moo nekk lii nii règle bi dinañ dimbali ci lu bëri bëri bari lu ñuy liggéey te lu ama am solo la bu ñuy bind document wala ñuy defar tex yii nii mooy outil yi nga xamante ni nga ko jëfandikoo te matuwaay la yoo xamante ne war nga ko mën a def laataa ngay tàmbali fii nii nag ci kaw am na ab barre bu ñu tuddee barre de raccourci barre de raccourci mun ngeen am lu mel nii kon lii ma am wala ngeen am yu gën a yées yi ma am. lii nag dañ koy jokk ci barre dara raccourci bi man mi nga xamante ne damaa tàmm di jëfandikoo équation lu bëri mun naa kaa jokk fii da ñëw insertion. équation mi ngi nii bu fekkee da nga koy jëfandikoo lu bëri dangay ñëw ba si équation nga bës clic droit nga cliquer ajouter à la barre d'outils d'accès boo ko bësee di ngeen gis ne jokk na ko fii soxlaatul nga ñëw insertion équation bu la fekkee ak rek boo soxlawee équation da nga ñëw bës équation si saase su fekkente ne tamit dafa am yeneen jumtukaay yoo xam ne da nga jëfandikoo bés bu yàlla sàkk comme zone de texte da nga ñëw cliquer fii nga def ajouter à la barre d'accès ajouter naa ko bu pare moo nekk nii boo leen ñëwee da ngeen cliquer direct ngeen ñëw ngeen dessiner seen zone de texte comme nu mu leen neexee yii nag ay raccourci yi nga xamante ne mu yéen mun ngeen defee jokk su fekkente ne li ngeen koy jëfandikoo lu bëree bëri da ngeen ñëw rek ngeen jox ko fii ngir jote bi mu gën a yomb du amee ay jafe-jafe yi nag ay manipulation yoo xam leen di dimbali ngir ngeen mën a tàmbali bu baax ci jëfandikoo logiciel bii di Microsoft Word di leen ñëw si yeneen jàngale yi yeneen outils yi ak naka lañ koy jëfandikoo jërë ngeen jëf.